si Charles wa de man en fait man fu lu may njëkk wax mooy pour man euh, suñu état bi en tout cas du état bu fort par rapport ak ak Covid bi je m'explique parce que aussi euh amul ñaari sénégalais ñun ñëpp ay sénégalais lañ. ça dit que soit da ngay def wala nga baña def état bi amul courage affronter li nga xamni mom mo ñu mom mo ñi andil problème ci Covid bi. il y a le côté par exemple religieux mais c'est un grand problème manifestation il y a un événement religieux il y a un mais il faut que l'état ait le courage de faire ko mais l'état n'a pas le courage de faire ça donc Bouchard-Loire est que par exemple euh, waruñu leen blâmer oui war nañ leen blâmer sur le côté que soit tu fais ou tu ne fais pas le cas de figure B soit da ngay jël ay mesures yu wor yu leer nga appliquer ko wala nga baña def il faut pas jël ay mesures pour wané ni ma ngi jéem régler problème bi sénégalais di pour man covid bi xam nga lan lay ñëk wané ban genre nit lañu ban type de nit lañu parce que pour man type de nit moy rek mo ci génn ci fièvre bi type de nit bi ñu doon individuellement mom moo ñuy génne une différence entre dañu naan Chine wala Corée il y a quelques années développé wu type de nit bi ñu nekk moo tax ñu dem ba am développé une ñun type bu ñu de nit bi ñu nekk moo tax feebar bi di gën law parce que nañu jël dëgg de ñu wax ko sénégalais ils font du n'importe quoi ba wax fa dëgg yàlla tey jii nii amul benn état bu mën fort fort foor boo xam ne di nga tere sénégalais li ñu bëgg nga def ko ñun ku ci nit deg nga limou lay wax les sénégalais sont indisciplinés bu waxuma waxu moyen wala dara mais ci approche bi déjà xam nga nit bu la né dara amul wala ah gëw ma wala duma dal té ay nit yo xamné xam nga nit bu yorul lu mu jëndee masque né la man duma ma jënd masque awma mais nit bu la xam bo xamné mën na jëndal 1000 nit masque né la yow sa bop man duma ko sol ah parce que lool mom moy que ñun dépassé nañu fièvre bi quand les sénégalais parlent de du coronavirus man j'ai l'impression que lu amone la ba pare ñu dépassé ko di ci wax tey te nii ma ji bu dee li ñuy wax ci corona dama li ñuy wax ci coronavirus yëpp bu dee noonu lay wàllaate bu dee virus bi noonu la existé ma xam ne duggagul ci réew mi te demul mais ma xam ne duggagul ci réew mi maintenant nan la benn mbir nga ko déggee Chine nga dégg naa ni Chine am na benn affaire nga ne teg ñu ne la ñëw na France nga ne teg ñu ne la ñëw na États-Unis ñu ne la ñëw na dégg naa almadi dégg naa ko fële ñu ne la rey na sa dëkkandoo rey na sa maam ba léegi. yow ngay xaar ba mu dal la. parce que mm. ñun genre nit boobu la ñu nekk. Mm. te il faut que ñu waxante dëgg mais dafa am ci waxante dëgg bi réew mi dafa am ay socle yu ci nekk. Mm-hmm. le pouvoir religieux dafa am doole ci réew mi. Mm. il faut que ñu encourage ñu teg loolu ci table bi ñu seet ci suñu wàllu. suñu xam-xam yu neew ak yépp ki suñu wàllu jaamu yalla nan lañ ci mëna jaamu yalla et donner le bon exemple pour que parce que état bi lu mais est-ce que l'état est capable de dire que quel que soit parce que ñi nan kilifa ñi ngi def mais bu dee kilifa bu génn 000 personnes wala 10 000 personnes dajé fa mais c'est pour une contradiction de frais. quand tu appliques tu appliques ou tu n'appliques pas te n'est l'État pas assez fort parce que état bi moom a courage am mbir ci ah la responsabilité ku nekk mu war qui parce que aussi dañu nekk ci benn dëkk ne li nga xalaat yëpp mënoo wax da <laughs> non la da mais le grand problème le grand problème moi que bonne responsabilité la ci pouvoir yi nekk ci moy pouvoir bi nga xamné mom moy moy euh, état le pouvoir religieux le sénégalais le père de famille tey jii mais képp ku am mam wala ku am yaay bu am plus de 60 ans bo duggé ci xol bo duggé ci kër bi yaa ngi koy xool bëtu yalla bu mu la yobbu mais il faut que xol bobu dayul il faut que les actes ñu suivre parce que nen lay yobbu suñu maam ak suñu yaay yi ñun ñii ñëpp nos nos parents sont à risque mm. mais énorme boo duggee sa kër amul benn moment boo xam ne ba ngay nekk sax di xalaat ci sama yaay yàlla bu ko affaire bi daal mais ñun ci lam yi rek dañuy wax mais si on ne pose pas les actes yi nga xam ne ñoo war nañ ko poser il faut ñu xool jël état teg ko fële ji nga état bi genre xeex yi pour nga mun ko il faut nga am moyen état bi amul moyen financier yu mu ko xeexee mais wax fa dëgg yàlla tamit noonu waxante dëgg genre nit bi ñu nekk ah day difficile pour que mbas mi mu wàññeeku tabaski jot na mais un État fort mais tu interdis les gens aux gens nous nous ñu de de un état fort tu poses des actes Il courage de courage là, mm. quel que soit l'inquiétude qui mais bu dee Samba bu fëgg ci table bi du du yoon nga des je je suis désolé mesures yi ñu fi restaurant ou bien les artistes ngi joué mm. am ils le savent le ministère de l'intérieur xam ko. y mm. a ay ay soirée privée koy organiser. c'est-à-dire qu'il ne faut pas communiquer pour communiquer. Mm. Fini par soit da ngay def nga gars leen. lu mais jël ay ay mesures parce que arrêtez yi mais c'est des professionnels et des experts ñoo bind Non. mais mënuloo bind benn arrêté man mi nga xaw ma connaissance juridique ma gis ci ay déjà te du un juriste. quand tu me dis xam nga y' a une cote, et vous le savez c'est-à-dire que vous communiquer pour communiquer avec. mais au fond il y' a tellement de contradictions autour de nous. que tu te demandes est ce que c'est c'est des professionnels avérés des gens de C'est léger soit on prend on est ferme par exemple quand si tu dis Amotul de, voilà amatul ngénte bu ñu hmm. mais ça veut dire que amatul pas amatul ngénte mais dans tout le territoire national te doo le journaliste yi doo les journaliste ici, mais am état bi amul courage def loolu hmm. kilifa yi fi génn yëpp boo xoolee seen dëkk yi ay nit yu bëri ñoo y c'est valable pour pour et c'est pas valable pour pour pour pour il faut qu'on soit clair soit soit parce que aussi même a jël Nous nous. yu nous au moins lui, c'est interdit mais nous après nous genre